mbokk yi nga xam ne yéenay seetaan ak déglu seen rajo télévision yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci jamono yi nga xamante ne euh, ñu ngi waajal màggalug Touba. ñu am waxtaan woo xamante ne dañ ko fas yéene seq ak Serigne Bass Abdou Khadr Mbacké moom mi nga xam ne moo yor kàddu Mouridulaahi nekkit président comité d'organisation sëriñ bi gannaaw ba ñu na luyoo ñu lay jaajëfal ñu bëggoon rek nga dellusi waatal ñu bés bii ñuy dëgmal muy màggal lan moo ko sabab lan mooy màggal ak ponk yi taalibe yi nan lañ war a def ci nan lañ war a màggalee. bismillaahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaam ala ashraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki julli di bokki taalibe yi ñu ngi nuyu ñëpp di ndokkeel ñëpp ci bis bu tedd di màggalu Tuubaa mu di bis boo xam ne bu agsee waris na cee fàttaliku lu bare bare ndax li nga xam ne moo ko waral te Serigne Touba waral ko mooy cant goo xam ne def na ko diggam ak boroom ndax suñu boroom dafa am yaar yu nekk ci loxoom lenn li da koy may ci ak baaxam leen li mu di ko joxe ci ak maandoom li muy joxe ci ak baaxam nag mooy li nga xam ne jaam yëpp loo ko maasale waaye li nga xam ne nag da koy joxe ci ak maandoom gaay yi nga xam ne ay gaayam lañ mu nattu leen door leen teg lim leen di jox moo tax li ñuy wax kam min ni'matin fii tayi niqma kon bis la boo xam ne loolu mooy sabab si ndax sëriñ Touba dafa bëggoon cër bu màgg bu rëy ni ma ko fàttalee woon daaw ndax moo waxoon ne ca ëzël ba suñu borom bindee ruux yëpp lay yëkkati lu màgg lu rëy lu kenn xamul nu mu yëkkati ko teg ko ci lu mel ak ndànjaama gu rëy muy feeña kay nëbbu ñépp di ko seen mu wax ne ku ma ko mën a indil ñëpp ne cell kenn ñëwatu dem wuti ko sëriñ bi nag nee na ci xam gi mu xam boromam ndax xam ne lépp suñ borom lu mu santaan rek lu mën a am la moo tax moo ne mu wax ko ko inni ataytuka bihi alal wajhil mardi mën naa la ko andil inni xafisun alim waxee loolu suñ borom rek suñ borom nongoonteeg moom deelanteeg moom wax ko ne ko demal toogaat ba àpp ba bu àpp ba jotee la nga war a def danga ko def loolaa waral bi nattu géej gi ñëwee mooy tukki bi mu fi tukki woon mooy màggal gi tey ba mu ci agsee mu nekk foo xam ne dafa liggéey li boroomam samaani xijajin illaa qalilan fa in manta fi in admamta ansan fa min indika loolu moo indi ati gànnaar gi muy bis boo xam ne comme ni ma ko waxee sëriñ bi dafa xayma lu màgg mooy bokk ci waa ahlu badr te waa ahlu badrin ku ne xam na ne nga leen doon may loolu dafa faat mooy joxe seen bakkan ndax ñoom dañoo joxe seen bakkan joxe seen alal te deret faat na li ci des na kon mooy jihaadu nafs jihaadu si boo sëriñ bi waroon def nag ñaan suñ boromam ne dama bëgg bokk ci ñoom suñ borom xamal ko ne ko loolu de bari waa na ko agsi fii nga toll waaye bu demee ba mu man ko natt bu demee ba ci biir ke ci gën a bakkanam du ko fekke wala ak ngëmam dana rëkki ko sëriñ Tuubaa ne xamal ko xamal suñu borom ne ko roogi de bindu ma ko ba xam li mu attan ak li mu attan waaye bu ko roogi attan rek jom jom ji ak fit wi attan ko ma daat koy nangu mu dugg fii xalwatu ci Daaru Xudóos ci jàkkee sëriñ Mbàkke Madina ba rasulullahi sallallahu alayhi wa feeñu ko xamal ko ne yoonu géej gi taxaw na loolaa waral sëriñ bi bàyyi ko fi dem Mbàkke bari ndax ñaanoon na suñu borom ne ko Touba nag moo ko aaral mooy dëkk boo xam ne dara du ma mën a jug fenn fekk si ma ci biir dëkk bi moo tax suñu borom ci dogalam yi nag moo tax sëriñ bi sànc Mbàkke Bari ak xam ngeen ya ci xew ci histoire ci sëriñ bi daara yi alxuraan ji fi nekkoon te mu dem bay bëgg a jaxasoog mbooloo mu bëree bëri ñu fi ñëw ndax ñi siyaare bari ba mujj mel ne marché te sëriñ bëggut ñi jàng alxuraan di jaxasoog ñi ci des. moo tax mu sàcc Mbàkke Bari ak war a génn nag ngir nattu bi beneen ba ci des itam suñu borom xamal ko ne ko da am sa nijaay joo xam ne dalaa bëgg lool te day nitug yàlla mooy sëriñ bu soobee te bëgg na la bëgg goo xam ne bu fekkente ne yaa ngi bëgg dem boo ko jëmmam fekkee bu jaay ne suñu suñu borom du la yóbbu loolu itam bokk na ci sart yee ko suñu borom tëral moo tax suñu buso bi dafay daal bàyyi ko sëriñ Tuubaa rek bi nga xamee nattu bi agsi na fekk ko ca. Mbacke Bari ci ngeen ko xamee ci histoire tubaab yi yónnee di ko woon fekk amagu ndigal ndax bu ma gisee xaritu yow ma sabti rabia safar sax moo gën a ak samina asad mooy bis bi waaye rabia safar ji fekk na sëriñ bi ci la waaja ngir jug ngir dënmali boromam kon laata tubaab yi di ko soññ fekk na boobu moom amagutoon ndigal borom génn waaye waajoon na ba njëkk xam ngeen ci histoire itam ba mu yónnee ak Cheikh Ibrahima faati yebal ko Ndar ndax boo fekk na tubaab yi ñu koy yónnee ay lettres yu bëree bëri ba nga xamee ne loolu am na nag Cheikh Ibrahima Fati ñëw ba sëriñ bi ba mu ko yónnee mu jugee ndar baag si laata muy tontu Cheikh Ibrahima Fati da ko wax ne ko sëriñ bi da ko wax ne ko fekk sëriñ bi génne na ci jàkka ji di tàggoog Cheikh Mouhamadou Fadil Cheikh Mouhamadou Moustapha ak Cheikh Mouhamadou Fadil di leen dénk ak Cheikh Ibrahima Fati ci histoire ni ko Cheikh Mouhamadou Fadil nettalee. waaye ba Cheikh Ibrahima Fati accès la ko sëriñ bi njëkk a wax mooy dara motuma wax ndax ba ngay wax tubaab yi ca dett mbar ba xorndoom yoo doon jox sa tànk sax maa ngi maa ngi ci maa ngi ci bët kon sëriñ bi moom teel naa xam fi mu jóge xam fi mu jëm ba mu fa bàyyi ko itam di liggéey li boromam yu bari xew na ci yoon wa ndax bokk na ca karaama yi mu njëkk a wane mooy am na barab boo xam ne bañ fa tolloo ku ne xam ne sëriñ bi waxtu julli wu ne dafa bokk ci lim jaayante woon ak boroomam ci njàpp mu bees la koy def bañ fa tolloo amuñ ndox ñu jaaxle lool ñaan ak sëriñ bi itam tàmbali nañoo lottu ndax mar nañ ñu jekki-jekki gis koo xam ne kenn xamut fu mu jóge mu ñëw indi leen am mbuus mu bari mu def ndox ñoom ñëpp ñu naan sëriñ bi jàpp julli ñu continuer bañ àggee jeewal itam ci histoire bi ñëpp xam nañ la ci xew tubaab yi lañ lañ lañ jàppoon ne noonu lañuy ñuy def ak sëriñ bi ñu agsee suñ borom da leen tàggat ba fa lañ bàyyi sëriñ ba sëriñ bi yóbbu boppam ak ya ca xew ba mu fa bàyyi ko dem jaar kokki jóge fa dem Louga ba nga xamee ni jóge na kokki sax jëm Louga xam ngeen ci histoire bi mu àndale àndale àndak ak ñi mu àndaloon ñu naan ko nag na nga farlu bu baax a baax te xam ne yaa ngi ngànnaayu ndax yaa ngi jege bi waaye sëriñ bi gëdd ko ne ko yàlla du wuute. te man ragaluma kenn ku dul yàlla yaakaaruma ndimbalu kenn ku dul yàlla kon sëriñ bi doog googu la amoon am aaya yu bëree bëri yoo xam ne suñu borom da ko doon waxante moom iza laqitum allasina kafaru saxfan fala tuwalluhum al adbar iza laqitum yooyu yëpp suñu borom di ko waxante moom ndax moom xamoon na fi mu jëm ba ak si luga jóge fa jëm ndar alamani rahmanu fi safina bi annani xadimu sil madina ñu jëlee ko fa yóbbu ko ndar ca conseil privé bu mandoo di fi boobu nga xam ne ñëpp xam nañ ne dara tegu ci ci yoon ndax ña doonoon ña doon tuddoo diine di woote woo diine te doonuñ ko ak ña nga xam ne ay doomi buur lañ woon ñoo xam ne ñëpp jàpp ne sëriñ bi dafa ñëw ngir yàq seen mbir ndax tool yi daal bayal tubaab yi taalibe yi yoon tool yi àllarba lañ xam impôt yi ñu daal laaj taalibe yi addiye lañ xam ñu jàpp ne sëriñ bi dafa ñëw ngir dindi seen góor googu ñëpp kalaame yu bari waaye sëriñ bi bañ ko teewalee ca seen conseil bu maandoo di ko boobu la leen sëriñ bi wax mooy lu ñu wax rek mooy leen indi leen firnde yi ngeen wax lu ko waral ak bu ngeen indee firnde ñi ko wax ak ñu li indi wax ji danañ mën xam ki ne ci dëgg ak ki newu ci dëgg waaye ñoom li lépp amuñ soxla waaye fekk na sëriñ bi moo ko ñaanoon suñ borom moo tax tubaab bi daa wax naan suñ borom moo ma boole ñoom ngir teg ma fitna ngir bëgg maa jox cër bi ma jox foofa itam wa id yamkuru bika lasina kafaru li yusbituuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuka wa yamkuruuna wa yamkurullahu wallahu xeyrul maakirin loolu la ko suñu boroom xamal yett yëf yooyu ñu bëggoon def rasulullahi lañ doon wax ba xam ñu ci war a def sëriñ bi ñenn ñi wax ne nañ ko def résidence surveillée ci ndar waaye ñu ne buñ ko ko defee àdduna sëpp dinañ fàq di ko fekk te bu baax du sot ñenn ñee nañ ko faat ba kanam ñu ne loolu tam buñ ko defee te amul jenn firnde jur tuuma jure danañu topp ñu ne kon nañ ko génne moo tax am na fu ko sëriñ binde mu wax ne wa asbata al ilahu fi qulubi man tasabbu fi naqlihi zaaka zaman ixraajahu ila al bilaadi naaya wa naa la fiha fawqa sam'i sharia kon loolu mooy tukki géej gi sëriñ Tuubaa ñoo xam ne jugee bi mu fiy jugee loolu li ko suñ boroom xamal xamutoon fi mu jëm ci biir gaal gi la xam ne gaboo lañ ko jëmee ndax kenn ci bokk yi moo dégg ñu ne sëriñ ci yoon wi mu ñëw fekk si ko ne ko damaa bëgg dégg naa ñu ne ay yuraadu yuraadu bi ka naxwa gabon sëriñ bi nee na ci laa xam ne ndax gabon lañ ma jëmale te gabon sëriñ bi nee na ñëpp xam na ne shaqawatu ahliha ashahira nga xam ne ñëpp xam na ne nee fekk fekku fa kenn kuy sàkku yàlla wala kuy sàkku yoon wu jëm ci yàlla ci biir gaal gi itam xam nga ne béy yooyu di sëñ bi tari yépp fu ci ne ñii dañ koo bëggoon a yejji di ko retaan ñii bëgg ko teg ay fitna waaye fu ci ne suñu boom day dox diggam ñoom azhaba anni llaahu fii garam basa qablu mubarisi wa anni xalbasa daani rahimu hinda daaw bi lahu bi ma axna ani tasawuf ak yeneen yu bëree bëri ñu yóbbu ko gaboom bàyyi ko fa ci barab yu wéet a wéet fu mu dem bay bëgg a tàmm ñu jëlee ko fa yóbbu ko ci benn barab te fu mu mën a doon tam du fa xam kenn du gis kenn koo xam ne mën naa wax ak wolof kenn koo xam ne gis na leen amut kenn jegewu ko amul mbokk du xarit du ko xam ñu sàn ne ko ne ko ne ko sànni ko ci biir gott gott yoo xam kenn mus faa mën a dëkk léeg ci diggante ay yoon lañ koy lañ koy lañ koy teg yoo xam ne ñëpp dañ ko fa romb ñii di ko reetaan buy julli ñi di ko reetaan. di ko xante sëñ bi nanguur te jëfandikoo seenu ñam nekk na ba jóge fa mës na jëfandikoo seenu ñam pension bi nga xam ne itam képp kuñ mës a def exil tubaab bi dañ ko boole ci seeni loi dañ koy yëkkati di la ko jox sëñ bi mësu ko nangu jël moo tax mu wax ne katabtu fil bahri anni laa amudu yadi ila nasara abidil maali wa tini yadi li muxnin karimin naafian samadin laa li darahimi tati min sulaytini mu ne sama loxo bi daal bu ma ko tàllee rek suñu borom képp laa koy tàllal du ma ko tàllal kenn koo xam ne du buur du du du borom daraja du borom alal yàlla mi nga xam ne daal dara ump ko te lépp ci loxoom xam ne lu ma soxla moom laa ko ñaan kon sëriñ bi ci natt yooyu la nekk tubaab yi saa suñu xëyee ñu du ko nattu di ko def def yu diis yoo xam ne doomu aadama attanu ko waaye nag fu ñu ko mas a nattoo rek suñu borom génn na ko ci natt jox ko ci ay daraja jox ko ci ay maqaama yoo xam ne lii ko suñ borom may tey te kenn mënu koo dindi ba àdduna tukki loolaa ko ko may mooy juróom-ñetti at yoo xam ne toog na juróomi at yoo xam ne dem nañ ba wax ne sax sëriñ bi génn na àdduna dégg ngeen ko ci histoire diggante Cheikh Ibrahima Fati ak boroom Sàmm ba histoire bu rëy boobu na ca suñu maam ju tedd di ja doxee sonn Fati Isa ba mu yégee ne gis na ne wax na ne sëriñ bi nekkatul ci àdduna mu gisee ñu jaaxle mu wax Cheikh Ibrahima Fati ne lu xew. so soxna soxna Faati Isa ne ko dañoo wax ne borom daaru ne ko dañoo wax ne sama sëriñ bi moo génn àdduna mu ne ko bu dee loolu la dafay boo nga dem dem ci yite ndax waxoon na ma ne maa lay jullee te maa ngi ci kaw suuf di dund ba te fàttu nga xam ne ñoom gis ngi seen ngëm nga fañ àggoon teguñ ci diir bu gàtt sëriñ bi daal di yónnee ndaw bindu leetar si Ibrahima Faati moo xam ne mu ngi ci kaw suuf kon sëriñ Tuubaa te fu mu mas a bind Cheikh Ibra Fatim mi mu bàttale woon njaboot gi bokk na ca leetar yëpp la ma koy wax mooy fàttewuma leen na seenum xel dal ku war a ne ci fitna nag ñëpp di la war a ñaanal ak di la boo bindee leetar di leen wax ne na seenum xel dal ndax fàttewuma leen kooku xam na fa mu jóge xam na fa mu jëm kon nag loolu mooy bis bi sëriñ bi nattu nattu yooyu la nekk bis bii nag saa su masaan saan natt bu ñu ko teg lu mu diis diis saa su bis bi agsee dañ koy furaat lu ñu toll teg ko sëriñ bi nga xam ne saa su accès da koy waajal di yëg na natt baa ngi bëgg agsi noonu la ko dund ba ñibbisi ba ba ba tubaab yi tële ci moom indi ko indi ko ànd ak gàcce gu rëy bi ñu ko fi indi diir bu gàtt la fi nekk ñu jëleete ko fi mu defe gàmm gu xumb ñu yóbbuwaat ko gànnaar fekk itam lim ba mu am ca ca ca ca géej gi dafa manqué at yooyu la moo tax mu wax ne te dafa wax ne suñ borom mboolem li baaxoon ci àdduna dafa xar suuf sa def ko fa mu dem di ko jëli ngir mottali liggéey fa moo tax mu wax ne man zanna zayri rib ami ak sasi misla ra misla masiri rasa ami jay sasi thabata kawnuhu jaholan umra bal huwa tadyibul ali lil umra lam yako cheyru ak sasin siwa jasa man lie xaada baax du wax da na jasa loolu mooy yoonu gànnaar bi foofa itam mu dem fa ci ñoom seeni xalaat jàppoon nañ ne nit ku weex dafa complex lool ci nit ku ñu dafa complexe ci nit ku weex waaye sëriñ ba mu demee ñoom seen jëm bopp ñoo wëlbatiku laxasaayu doone daanukat ba mel ne taalibe yu bàyyi fii acheikhu ahmadu nimatun awlaha haasihi alxalaaiqa kullaha mawlaha falhamdulillahi allasi nicmauhu laa yastatiu ibaduhu ihsaaha noonu lañ ko toppi di ko tagg di ko kañ di ko tagg ba foofa mokk ba fii mu ne boo fa demee ci réew ma ña ci ëpp taalibe Serigne Touba lañ ña doon taalibe Serigne Touba yëpp itam ay soppeem lañ waa Mauritanie dañuy wax ne Mauritanie lenn képp lañ gis ci luñ maase dëppoo ci mooy ñëpp nangul Serigne Touba ku aju ci moom ak ku ajuwul ci moom kon loola sëriñ bi nekk ba jóge fa ba ñëw ci yéen Jolof nekk fa ci liggéey ba mu fa doon def ba defar fa ñu bari bari ba Touba yu mujj xam ne lii kat bu wéyee dana mujj Sénégal gépp dana defaru ñu daal di ne nañ ko indi njaarim te fekk ne njaarim boobu fekk na suñ boom del na ko xamal ko ne fala sa mbir ne fàng ba àdduna tukki moo tax Serigne Touba xam le ne raamoo masiri ilaa Jurbel la daal la sasi law aayanoo sirra maa fi sayri maa raamoo fekk na nag njaarim fala ko suñ boom di wane wane li nar a xew ginnaaw lépp mu fàgg ko fale mbiram di yëkkati ko ba mel ab jant ca njaarim ca atum 1900 xaama masasin boo demee ca safaru masasin yi da nga ko ca gis fa la Sëriñ Tuubaa xëyee bis jëmbi jamono mu xëy di waajal nattu bi ngeen xam ne mi ngi bëgg agsi suñ borom xamal ko ne ko nag nattu bi jeex na léegi nag ak pay képp ci des ba adduna tukki nag ni nattu bi daa demee saa su agseetee màggal gi sa mbir day yeesaat peq luñ la ma samay ci xéewal lu mu bari bari bu heure bi agsiwaatee danañ ko furaat lu ñu toll Serigne Touba xëy daal di woote ba ñëpp daje xam ngeen histoire maanaam na mu demee bu Modou Bousso moo jëloon gàtt ak aw bëy jox ko sëriñ bi àddee yóbbante ko Serigne Moulay Serigne bi soppi la ko am xar moom la ci njëkk a defar ci bis bi. ba sëriñ bi xëyee woote nag Serigne Balla Fally Dieng tam ñëpp xam ne histoire bi moom la ko Serigne bi waxoon ne ko noo ko wax taalibe yi ne fu mu fekkati waay na ko na ko ci santal yàlla ci bis bi ndax xéewal yi mu ko ci def boppam doyu ko ci. te cant gi itam suñ borom noo ko santaane wa in tashkuru yardahu lakum bi alam bi zakirin waaye nag xam na lu jafe-jafe la moo tax mu ne wax qalilun min ibadi ash-shakur ñu néew ñooy sant kon sant googu nag mooy bis bi tey ba sëriñ bi xëyee woote ba ñëpp daje am kenn ca taalibe yi kuy doxantu ci àllum njaareem bi fekk génn lëggu rafet ndax taalibe yi lu ñu ma a gis lu baax sëriñ bi dañ ko yéene wa yusiruuna ala anfusihim walaw bi bihim xasaasa mu andi mu andi sëriñ bi lëggi sëriñ bi daan xanaa lëggi de jaaxle na lool ñëpp ne ci yàlla mooy la ndax dafa da dafa daa sori bokkam lool ne nii nag laa ci biir tubaab bi ne cundum ci seen biir kon sëriñ bi taalif ci xasida xasida goo xam ne da caa dugg ci tur yàlla yi al arnab gi fiir lëg ci tubaab ci arab wax ne allahuma yaa man ajaabani wa radita anni wa nafaatani wa baarakta li ijaabatan waridan wa nafan wa barakatan lam yusbaq ila mislihi wala yusbaqu ila mislihi wa salabta ilayya fi yowmi xatti haasal xatta alqur'aana wa lisaan alarabi wa manaafic dunia wal axirati fihima fa salli wa sallim wa baarik ala sayidina wa mawlaana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi yaa man jahala haasihi alqasidata ahabba ilayka min kulli mawsumin qablaha ci la ko sëriñ Touba taalife kon màggal gi bis la boo xam ne sëriñ bi ko santaane woon wax na ne ko ci ñëpp santale yàlla ci xéewal yu rëy yi mu koy def yi mu koy defal ñu di ko dundal lu jege ay at ci biiru ak nekkam saa su accès taalibe bi yëpp kenn ku ci ne di ko màggal ba sëriñ bi ñu bisu Touba ginnaawam itam Cheikh Mouhamadou mustafa wéyal ko ndogu sëriñ bi doon defee fenn fu ci nekk taalibe bi di ko fi màggal. ba 1945 mu bàyyi ko fi ak Cheikh Mouhamadou Fadil ñëw ba mu dikkee nag moo ko toxal si fii ci Touba ñëpp ñu di ko màggale ba nii tey kon ñu ñaan ñëpp dugg ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci ci alhamdulilahi rabbil alamin te ñu di ko màggal itam ni ko Cheikh Mouhamadou Fadil daa santaan daa wax ne nañuy màggal jaamu yàlla ge te wattandiku def fi lu neexul yàlla ndax kuy màggal si kat waru fi jële bàkkaar te Touba dëkk la boo xam ne Serigne Touba dafa ñaan suñu borom ne ko wa man faan li kulli haadin muslimi wa madfaan an kulli haadin mujrimi haadin képp ku fi def lu baax dañ koy ful ba mu àgg ci tuyaaba ju gën a kawe waaye nag ku fi def safaan ba noonu lay demee moo tax Cheikh Mouhamadou Moustapha Cheikh Abdou Khadre Mbacke daana nett ne dana ko sabaay de nee na jaamu yàlla de baax na fu ne waaye sakkanee na Touba kon na ci ñëpp góorgóorlu bañ fee def lu naqari yàlla fexeet ba góorgóorlu ci li ci sëriñ bi santaane te la ciy jiitu mooy alxuraan ndax alxuraan sëriñ Tuubaa moo doon pàggu téefan moo doon léppam lu mu mas a def rek ci alxuraan la koy tàmbale kon la ci ñëpp góor lu ci waaye man ci jàng alxuraan ni ko Cheikh Sidi Moxtaar santaane te waa kër sëriñ Tuubaa yi ko jëkk daa ko santaane noonu lu ci waa man ci salaatu ala nabi nga def ko ndax loolu suñu borom ko santaan inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi lu ci xasaayiti Serigne Touba yi nga xam ne itam Serigne Touba neewal na mooy ay jeexitam lu ci waay mën na ko def te neewal na ko nit ku topp ay jeexitam fu mu ne danga ko fekk kon na ci yëpp góorgóor te di ko sellal ba ca des nag mooy bernde bernde na dafa màgg loolu ci lislaam ndax rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ko laajee lenn moo gën a màgg ci lislaam dafa wax ne nuyoo ak joxe bernde kon bernde dafa bokk ci li gën a màgg ci lislaam te xam ne loo ci def ci bernde itam sàkk tuyaaba gi ci jublu ndax lu ci nduur neex sabak lu neex sabakan nam ak feet suñu borom moom lu ne nam ko doxale rek ndax boo xoolee tabaski boo ci doon julli ay rakka bokkute la ca jëriñ la ca li ci ëpp tuyaaba ca bis mooy rendem xar la yanaal allaahu luhumuha wala dimaaha walakin yanaaluhu taqwa minkum te day bu fekkonte ne da ngay xool li dëppoo sam day mel ne kon loo ci gën a julli day day gën a yenu ci yow bisu kore itam ñëpp xam nañ ne la ci gën a suñu borom mooy nga bañ ko wóor kon màggal gi itam na ci ñëpp góorlu am ci pëstéef te ku fi ñëw ku ne itam nga xam ne ci dëkk bu tedd nga jëm si dëkk boo xam ne moo gën gënal Serigne Touba ñaanoon suñu borom yi ne ko yàlla na nga ma ko defal mu doon dëkk bi la gën gënal ci kaw suuf wajalahu yaa rabbi ahaba maskani fi ardina laka walil maaxisani te loolu tam suñu borom wuy na ko ja ndax moom waxoon na ne saa su ma yëkkatee sama xalima rek fekk na loolu suñu borom may na ma ko ba noppi waaye nag dama koy teggi ne di ko ñaan ndax moo wax ne ud'uuni nii astajib lakum izaa katabtu izaa katabtu tazza arsul baaqi wa shabbahat malaa'ikati baaqi koo xam ne foo yëkkatee sa xalima rek aras ak kursi yu ak malaayika dañuy sàbbaal loola kon lu rëy rëy la kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan bis ñu dugg ci ji bismillahi rahmaani rahim génn ci ci alhamdulillahi rabbil alamin day jeeg ngërëmul yàlla suñu borom mi nga xam ne wa ridwaanun minallaahi akbaru zaalika huwal fawzul aziim dañuy gi tam ngërëmu Serigne Touba mi nga xam ne sàkku ngërëm rek sàkku ngërëmam rek lañ ci sàkku ci bis bii ñu day ceeg moom te dara àdduna bañ ca dugg dara luy yàq jëfit bañ ca dugg ndax waru wa rubbama ibadatun kathira qad afsadataha lahsatun haqira jëf moom li ko mën a yàq daa bari moo tax lu ci waay jëf rek na ko fàtte te xeeb ko te xam ne la tax nga man ko yooyu yëpp taxul doon ni'matallahi laa tunsuha ñoo xam ne itam xéewal guñ ci def rek ba man koo def itam Sëñ Tuubaa xéewal gu moo ñu jox. kon ñi ngi sant ñëpp dëgër ñëpp. di ñaan màggal gi itam nga xam ne nam demee woon ca cosaan la suñ borom da koo delloo yàlla nañ ca di gën a dajee tawféex ndax weer woo bisu àllarba la feeñoon di benn fanu gaaw di benn fa di di fukki fan ak juróom-ñett dëppoo gaaw ci la fa sëriñ bi xëy woon ren jii noonu la dëppwaat kon nag ñuy ñaan ñu daje ñu daje ci tawféex tam màggal ko koy ati ati at te daje ci ngërëmu Sëriñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa الأبرار أسيرا وطن الأعداء هناك أسير